ki ma lay wax juróom ñaari mbaam sëf la ren di ndax lan alali àdduna dëgg la groupe la woon da doon agressé di sàcc di fàqat di def lu nekk di fóonante rek la yam amul leneen mais fóonante dafa garaaw bu garaawee nag gém ña miñ dong la bëgg siiw du dem bàmmeel ku may digal lu baax ma def la sama noon weddi li ma doon fa ma jóge woon gas def ci kàmb la ma bàyyi be woon léegi maa ngi nii fu ma nekk nii dafa mel ni dama reer xaw ma lii lan Euh, jërëjëf El Hadji jërëjëf Top jërëjëf Lay Diallo nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne rek ñu ngi saxoo di seetaan seen télévision bu mag bi lee mu la voix des sans voix ci studio El Hadji nga xam ne moom moo di jàmm daal di soobu ci li nga xam ne daal di liggéey bi daal di ànd ak nga xam ne rek moom moo di son yi bu ci fait divers ak ak ki nga ci li nga xam ne rek moom moo di kujje gi jóge ci daal di ànd ak sama rek ci Dieng euh, madame Dieng Sall coroma jigéen ma ki nga xam ne rek tey moom moo di oustaz Sanjogu Meng ci li xam ne rek moom moo di masala euh, ma koy nuyu ko nga xam ne rek moom moo di son yi bu Jóob chéri Ayda la son yi bu maa ngi lay fay ajaratu Sukay di la nuyu di la jaajëfal di ñaan yàlla ci euh, bés bi nga xam ni mm-hmm. ci la yàlla dogal ma fekkee gum émission bi nga xam ni jomet la mm-hmm. te bés bi soppeeku nekk àjjuma mm-hmm. bokk ci sangu bisi yal na yàlla barkeel ko comme ni nga xam noonu la bés bi barkeelee amiin yaa rabbi ñu seetaan ñëpp nuyu xaritu Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke Alaaji Sanjoogu Mbeng ñaanal Serigne Sidi mu yàgg fi loolu te ànd nuyu euh, madame Bonheur di ko mhm. ñaanal yàlla jàmm nuyu ma jigéen Diop mhm. euh, nuyu la bu baax a baax a baax tey ci kanam tuuti nañ ñëw ci fait divers incha allah ak noo ko dundee lu bare bare mhm. d'accord ba ci kanam tuuti euh, madame Kébé Ndiouga Ali Ndiakhate ak Sang Mbaye chéri bisimilahi rahmaani mm-hmm. rahim amaan mm-hmm. bi tegu rëy rëy ci émission bu mag bi leen di jommet ne naa dama yàkkamte àjjuma jot la ba ñu toog ci as jàkkaarloog askan bi di leen mm-hmm. wax li nga xamante ne mooy liy dëgg donc mbaay maa ngi leen di nuyu di nuyu Saa Ndiogu Meng Meng ak Mboor maa ngi lay jox sa wàccuwaay di la mm-hmm. nuyu di nuyu maay sama rakk bopp ci lalal naa yin ñaan ñëpp macha allah ca tagal bala sony bu jóoba juba maa ngi lay nuyu di ñaan tamit bébé bi yàlla dunta ta barkeel ci barke Cheikhul Khadim yàlla nekk xale boo xam ne dina am ñam xale diine xale lislaam mu am ñam daal macha allah bu ñëpp di dégg tubaarkàlla bañ naan xaar leen doomu diw mu ñëw yal na bokk ci yooyu njaboot eh, di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan di nuyu biir réew ak biti réew itam dugg diaspora bi nuyu sama sang bi Kébé Ndiouga Ali Ndiakhara sang mbay du ma la fàtte tubaarkàlla yaa tax dew ma mane di jaay keew mhm. di nuyu sama yaay booy di la wax bajaan Sakura waale dundal wéeral yàgg fi lool ñaani yegsi na yal na la fi yàlla bàyyi waaye du ma tëj itam te du ma nuyu xadindooy ci sponsor yi ndax moo ko maa anta ba jomme doori ba léegi dañu may sot HLM 3 mhm. boulangerie Baye Guéndé mooy jàpp ci coiffure bi jàpp ci maquillage ba ma jonguma belli neex xool tubaarkàlla mhm. Ndoye Mani Maram Ndoye ah yow loo mun ren yow itam yàlla nga ko mën déwén yaag say xale mhm. di souhaité waale Anta mi ma makkee joyeux anniversaire happy birthday to you Anta dundal wéeral xam naa numéro Khady dina jaar ci barre d'écran ci kanam mhm. moom ma koy nuyu nag sama rakk ji madame Dieng Sall coro ma jigéen mi jaar ci maquillage bu rafet bi ma mhm. fi jaar tey ni ma sukaa sa kanam gi moom tey bu bellee rek kon maa jigéen Jóob la ma maa sama rakk di nuyu naa la. maa ngi lay fay madame boo sa weex. <laughs> non non ayca <laughs> maa ngi lay fay bu baax baax sukkay mm. di la nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm. di fay bam bi nuyoo moom itam di ko lalal ci sañse bu nice bi macha allah nuyu son yi bu Jóob nuyu nag Alaaji Sanjoogu Mbeng nuyu nag téléspectateur yu ñuy suivre yëpp ak képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy seetaan ci live euh, Solution TV di gërëm. bu baax a baax euh, internet yi parce que ñoom itam ci lañ bokk mm-hmm. parfois di leen nii dafay baax parce que ku jël sa temps moom toog di la seetaan sant ko gërëm da da day daal di baax say su nekk nag mhm. dem ba Thiès kaay nag benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen jaar leen ñaanal leen jàmm di ko ñaanal nag Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahad Mbacké yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram sooy Assane déggal <laughs> pardon su kay euh. ñu ngi nuyu nag Serigne Moustapha Sarr jàmm doom ci jàmm Serigne Touba euh, suñu soppe boobule ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm ci kanam tuuti dinañ ànd ak yéen ci masala ñu ngi nuyu nag oustaz Souleymane Diaw bu baax a baax waaye tey nag euh, oustaz El Hadji Sa Ndiogou Mbengue la ñuy àndal euh, je sais ba xam question yi dina ko tontu comme euh, ni ko diine waxee mais ci kanam tuuti daal dinañ ñëw ànd ak moom incha allah. <laughs> jërëjëf ci moomu sax laa jëm mu nuyu ko oustaz sa kooku mooy di soppee sëriñ Sidi mu sëñ Abdoul Ahad Mbacké ibnu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul nuyu naa la oustaz nuyu na la. Souga ñu ngi lay fay <laughs> mhm. di la ziar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow mhm. eh, di dem ba Touba nuyu xalif général des mourides sëñ di ko mu yàgg fi tànd waaye di nuyu di ziar sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi sëriñ Abdou Lahad Mbacke ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ziar wér nuyu sëriñ Xaadim ne ca kër ga njaboot ga yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di nuyu bu baax su gaa sëriñ Abdou Karim Mbàkke borom Makaarimul Axlaaq di nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar di nuyu baam bi di am ci moom mbégte kontante macha allah di nuyu bu baax son yi bu Jóob di am ci moom mbégte ak kontante mais aussi tamit di nuyu ma jigéen Jóob di am ci moom mbégte kontante comme tey <clears throat> ki nga xam ne mooy Oustaz Talla xam nga Euh, dafa xaw a tawat yaram yi doon sudante waaw dafa tawat parce que ñaareel tawat moom alaaji fépp lay kii bal ñaareel tawat bi fépp lay kii xam nga dafa <laughs> ñaareel bis escanté wu ko xam nga non ban bi mu daan ñëw di tëdd di béréngu fee fan <laughs> talasuus soo ko ni mu daan tëddee bu mm-hmm. mu tëddee mu jigee après fan yooyu paase après doon nooy nooy eh. <laughs> tala suus tala suus tala baa envoyé audio di àppaat dadaay talas tala xamoon nga ni lii de fu daal fépp lay ñëw fu mu nii nag macha allah eh, kon tey danañ ñëw eh, daal di firi laaj yi rek parce que tala ni mu koy defee yomb na wër ndomba wër a kii ni muy kiyee noonu comme que ñun moom du ñu ñëw ci ay waaye dinañ ko ñëw wërin wëndeel ko comme li nga xam noonu la taxawee taxawaayam kay da war a firi ah. ay da ngay firi comme moom rek da nga taxaw pour bul da lan non dingatu mais sa ñama laaj parce que ci yoon woowu mais dama laaj léegi kon sa ñu ma laaj parce dañu ah, démarré bu commencé gu ngay dingat laaj waaye dinaa laaj waaye déglu ma rek déglu ma sa question kalasuus la ko laajoon man question yi may lijjanti ah, mooy question yi bu lijjan nga fi bàyyi woon ñu ñu nit ñi di naa fi léegi mën naa bàyyi boobu ba oustaz ñëw mais sañ naa ko laaj am nga droit laaj ko moom bi nga xam ne man moom laa am moom laay tontu mooy bi nga xam ni mm. mooy yi ñii di wax mais ñun sañu ñoo laaj sama ngañ ci seen question parce que man kenn du ma tegal benn ndëgg sarax waaw léegi fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamuuna nag eh, ah. saa mooy lan wuy sama oustaz bañ yegg ca bañ yegg ca bañ yegg ca ah fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun foo koy dugal ko ah bañ yegg ca loolu mooy lan ah oustaz a da ko baax sugaar bàyyil bañ yegg ca bàyyi noonu bàyyi bañ yegg ca rek hmm? nuyu waaleel ma Adam Badiane sama rakk yaay fàttali nuyu ko Adam ngi koy nuyu Badiane Adam Badiane ñu ngi koy nuyu lu bare bari moom Adam Badiane doo mi ngi lay nuyu Eh, sama grand frère. ndeysaan ndeysaan keroog keroog lañ daje quoi. dëgg la Senghor Mali maa ngi lay nuyu au passage. ndeysaan sama magu xol ji. ndeysaan <laughs> donc Sakura Ali ah donc mm. kon ñu dem régie daal di jël li nga xam ne rek moo di fay bi ak noo ko dundee ñu ànd ak ki nga xam ne rek moom moo di son bu euh, jërëjëf El Hadj Mamadou Diouf ah mm. euh, El Hadj voilà tey li ñu bëgg waxtaanee suka mhm. daañu ñëw ci euh, dëkk bi léegi fa ko maam bàyyi woon démb ak barki démb daa mel dafaa jóge mhm. beneen bi mooy it fu ci nekk suñu njiit dem nañ ci réew mi ak biti réew wax ni kat Sénégal réewum démocratie la mhm. ak ci yu bëree bëri démocratie bi nag dafa am lu bëree bëree bëri loo xam ne bu ñu xoolee ci ay jàngat moo koy dindi dinañ ñëw incha allah ci Papa Ndiaye mi nga xam ne fii la ci kër gi te dañ ko téye lañ ko téye donte ni nee nañu ay wax la yu mu wax yu mu euh, xaw a ñàkkee teggin magistrat bu Sénégal ak it sosal leen loolu dinañ ci ñëw gannaaw baat gis nañ fa ay journalistes yoo xam ne nee nañu dañoo euh, màndi ba ni xuy mbëkk ay mbëkk euh, def ko ñaar yoon ñu delloo leen li nga xam ne mooy seen permis est-ce que ñu ni amul deux fois deux mesures dinañ ci ñëw Bougane Gueye Dany mi nga xam ne itamit ca wet ga gis nañ ko posé question ñu daal di koy jël teg ko garde à vue moom Bougane gay Dany mu ñëw daal di confirmer ay milliards yu lool yu ñu dugal ci biir Sénégal te ba léegi nee na dara euh, daal di ci sotteegul ñu njëkkee ko nag ak conseil des ministre bi nga xam ne président Sall def na ko baam mm-hmm. bi bi mu ko defee dafa mer mer na gouvernement bi yëpp nag lu tax mooy dafa gis ni dafa wàññi woon. ceeb ak diw ak lépp mu mel ni daal président Macky Sall xaw ma njabootam ko dégluwul. Mm-hmm. xaw ma ndax commerçant yi ñoo ko dégluwul mais daal mer na trop ba wax ni daal njëg yi mu wàññilu woon daar daar daar daar daar na ci yi nga xam ne mooy ay ministre am jóg ngir ñu wàññi ko léegi na ñu ba ci bàyyi est-ce que jotul kon président Sall bàyyi wàññi ndax lépp lu mu laal tey bu ni woon ndox mii nañ ko wàññi bu suba weer wi di ñëw ndox mi yokk bu ni woon courant bi nañ ko wàññi weer wa ca topp da gis courant bi day yokk léegi ñu bëgg laaj nag lu xew boobu président waa réewam déggaluñ ko wala ay ministre am déggaluñ ko wala commerçant yi déggaluñ ko sooy bu euh, d'une part waa réew mi déggaluñ ko laay wax je pèse bien mais mots très laa toog di wax en plus tamit commerçant bi dem jënd bagage am xamoo lu mu jëndee tey nga wane ko tey kur kookur da nga koy da ngay wàññil baam bi mhm. pour mu ñëw jënd est ce a ah, a am a am ay norme ba pare parce que yow mënoo génne benn ne na mhm. tey boutique bu nekk kilo ceeb ñu ngi koy jaay cinq cent francs mhm. de grâce nañ jënd cent francs suba kilo ceeb na jar quatre cent te boutique tamit ñun ñun ñi nga xamante ñooy clients yi ñun ñuy jënd buñ ñu wàññilee tamit ba bañ signé lool nañu wax ak tamit grossiste yi mhm. parce que man bi wàññi bi commencé door dugg naa ci sama boutique mu yokk meewu góoral yaa muy jar cinq cent mhm. kilo suukar mu ne six cent cinquante suukar six cent la doon jar léegi moom mu yokk 650 ba mu toogoon ba tey jugu dooloo ko 600. Mhm. mais xam nga dama ne ko damay au contrôle économique xam ma wax. yow madame Bonheur wooteel kon kooku am na ci lu mu teg. waaw dama ne boo ci wootee sax ngi nii samay facture mi ngi nii nangam laa jëndee ba may jënd saako suukar lii lañ ma ko jaay kenn wàññilu ma kon du ma wàññi état bu lu muy wàññilu naka na ñëw yéen mu jaay leen mu ñuy daj ah, parce que ñun wàññiluñ comme ñoom nag wàññiluñ leen fa ñuy jëndee honnêtement ñoom amuñ droit wàññi ci sama xalaat bu gàtt quoi mais bu fekkee ne ñoom grossiste bi lañ leen doon jëndee bu ñuy mhm. ñu wàññi leen bu ñu jaayee quatre cent cinquante ou cinq cent dañoo war a woote numéro vert wala ñu woo ñeneen contrôle économique ñu ñëw jàpp leen mhm. mentionné leen ñu dénoncé leen mais nag loolu mënoo ko def fenn parce que ñoom la ñuy jëndee ba tey ñeneen ci loolu lañ toog di ko jëndee location yi pare yaa ngi jooy boutique yi mais location yi pare ñu nekk ci kër yi da ngay wax mm. yow yow yow mi nga xamante ne locataire nga da ngay wax propriétaire kër gi ne ko wàññil parce que état moo ne nañu wàññi mm-hmm. mu ne fuñ ko teg nga bëgg a indi njuuj njaay xam nga borom kër gi lu mu lay wax damay réflexionné génn te da ngay génn par force mu joxaat ko keneen nga génn mu jox ko keneen ki nga xam ne li nga doon bañ moom nangu na ko mm-hmm. loolu la bañ loolu la wax ngay bañ tuur ndox après ay ngalaw di la rey du genre dañ koy teggi na ci télé laa nekk mm. donc wàññi bi dara wàññeeku fi tey la waalo gën a waa ay tey la gën a métti son yi bu indi bi fépp lay suusee loolu laal mu metti man dama dama tiit dama ne man wàññi bi ci ban parti lañ ko wàññi wala wàññi bi dafa am bi bukki bi njuur bi sàmba peut-être mu am ci benn ruq comme dëkk bi moom lépp lobi la mhm. am na yeneen ruq yoo xam ne amaana boo demee dañ ci am bon prix bi nga bëgg mais à l'heure actuelle boo dee yoroon sa micro trottoir mhm. mbedd bi yëpp soo génnee dara wàññeekoo réew mi dara doxut réew mi feebar réew mi taab na réew mi girib na ñun dañoo jommi <laughs> jërëjëf réew mi taab na waaye békki am na fi xam naa jëmbal maam ñoom dinañ génnewaat békki ma jigéen euh, léegi nag li jaaxal Sénégal yëpp mooy maanaam suivi daal moo mënta am ci suñu dogali euh, état yi lépp lu ñu wax rajo yi daañu ko ngañ ngañee def ay édition spéciale ah ay débat spécial nangam spécial bu ñu paree deux mois après dara du ca du ca sotti loo jàpp ni looloo tax. <laughs> waaw suñu bu suivi kay am na si yenn yenn yenn yenn mbir yi nga xamante ni ñoom bëgg nañ. ñi mu dénk sax laay wax. Mhm. mu dox. Mhm. parce que soo nekkee président xam nga ñun Thiès lañ dëkk. am na ay travaux exemple rek laa lay jox am na ay travaux yoo xamante ni nii dafa nekkoon. comme mhm. par exemple boo wàccee péage bi. am na benn tali bu ñu doon defar bu bu jëm si côté stade bi noonu. tali bi kenn xamul woon. ban at lañ ko commencé. Mhm. mu ñu dem ba si digg bi ñu arrêté liggéey yi foofu yëpp dafa xonkoon parce que tali bu xam tali boo koy defar lu njëkk li voilà mhm. boo fa rombee say oto yàqook yooyu noonu mais keroog bi président bi di def euh, tournée bi. Mhm. Thiès. dañoo gaawoon taf taf. ah oui wallaay lanzim ñu defar ko ba ma ma fa jaaraatee sama frère bi moo may wax ne ma xolal lii amaana bu fi président bi rombul woon tey. du liggéey bi du gaaw a pare comme ni ñu ko gaawantuloo defar ko pour wan ko ne ko tout bien kon mm. donc moom bu fekkee ne dafay wax ne daf leen mere te yenn mbir yi su bëggee mu ñu bëggee taf taf mu gaaw mm. ñu gaawal ko xam nga ne loolu son yi bu mooy mm-hmm. que nii dafay wax ne pour pour pour genre xaw ma daf koy wax pour sénégalais yi delloo si waat seen xel wala daal mais li jara def tali c'est bien baax na pour nit ci mën a jàll mais dund gu cher gi nekk si dëkk bi mm-hmm. nga ne yow tey wàññi nga boo wàññee ne borom boutiquier yi nañu wàññ mhm. jaaroo ci consommateur bi wala peut-être ci port bu muy génnee fañ koy jëli jee yooyu yëpp bu amul procédure bu war borom kii bi mën na lànk ne moom tamit mënumaa jëndee lii juróom mhm. ngeen bëgg xëy tey ma jaayee ko ñaar dërëm kon loolu pertement pertement lay doon donc il faut que ñoom tamit ñu xoolaat bu boo baax a baax seen doxalin parce que mënuloo ne tey tali bii dangaa bëgg mu pare tey dund gi cher gi soo nee dama koy wàññi numéro vert yooyu ngay wax pour nga woote ci rek jot ci rek problème la xam ah nga loolu aussi boo nee yow boo boo gisee loo xam ne jaaduwul wooteel boole fi nga woote ba sonn mu sonn sonn sonn dans le vide ngay woo kan ngay kan kan fan ngay plaider woo li li la li la nakkari kon donc daal man daal vraiment mbiru président Sall moom ah nañu nañ xaarandi rek comme que jeexal na ba noppi peut-être mm. keneen kuy ñëw dina dina jéem a xool sooy bu bul ma dugal si. laaj la wala. laaj la wala li nga def ni ab question la wala. question la dafa war a arrêté mandat bi bu jeexee. Ah, keneen ñëw da laaj ndax daa war a wàcc wala da ngay. question non dama ne ma laajuma de. dama ne li Sénégalais yi wax. sooy bu s'il vous plaît. sooy bu Sénégalais yi ah, wax mooy. que ni fii dañ ko fii tere. kon donc bu jeexalee message bu am solo laay jàllale. xam nga tax dafa laaj waaw dinañ ci ñëw ci ah. après eh, ne ma ah da ngay laaj ba bëgg ma dugal si yoo xamante ne ni après man leen buñ ma woowee. yéen ñaar dama leen si bàyyi parce que ah. yéen ñaar laa bokkal plateau bi. dëgg la vraiment. doy na waar man ma defoo de ma defoo de yaa xam mbay de buñ la ko defee. jërëjëf su kaa kon su ma déggee ma jigéen dafa mel ni kon état bi fii ak mi ngi toog buroom di xaatim te du wàcc sur le terrain. dafa mel ni mu dara kon du sot wallaay dafa mel ni kon bu fekkoon day jéem a wër boutique di def ne Omar ibn Abdoul Aziz daan def. Mhm. di xool réew mi ni muy doxee. Mhm. su ko président Sall doon def kon def naa yéen ñi dina am suivi. Euh, son yi bu ma déggee maa jigéen li mu wax. Hmm. Euh, euh, Sall ngaari ñu ngi koy nax. Mhm. waxuñu ko dëgg. ñu ngi koy nax ñu ngi koy nax bu baax. da ngay laaj wala. déet ñu ngi koy nax loolu moom maa ko wax. waxuñu ko dëgg. ñu nekk di ko entouré entourage am. waxuñu ko dëgg. lii moom man maa ko wax. Ah. maa koy assuré. li ne ci terrain bi daal waxuñu ko. waxuñu ko dëgg sérieusement. mais dama dégg ñu ni président moo gën a informé wu ci. déedéet yow tamit nag kon Abdou Diouf ko Abdou Diouf kon dina dina wàcc ba pare ne xamuñu woon ni meew day jaay juróomi dërëm. Hmm. c'est grave. c'est grave waaw. Hmm. nit ñi du tey sa tey bu ma doon ànd ak yow euh, ma ma ma di la gëmal ni la lii baax na baax na baax na. Hmm. dangay gëm ni baax na te fekk baaxul. boo naree boo waree ñëw fenn ma ni xaar la ñu defar fii ba mu baax balaa balaa son yi bu di ñëw boo ñëwee boo gisee loolu day baax kon da nga naan lii baax na fekk dara baaxul ci. fekk dara baaxul ñu ngi koy nax waxuñu ko dëgg. Hmm. bu dee yokk bi tamit moom bu fekkee moom moo waxoon. Hmm. bu fekkee population bi ak nit ñi ba xam ay ministre am koo yeb ba li amul kon ay ministre am dañ koo yeb ndax waxuñu ko dëgg. Hmm. te nit ñaa ngi parce que woon moom dañu wàññi. waaw nit ñaa ngi souffrir mais ba léegi tey la gën a yokk. Euh, nit ñaa na joxe nopp bu baax bi. déedéet na jo na ko joxe mange wallaay maa ko wax ah. du lay na joxe nopp bu baax bi ndax nit ku ne da koy wax dëgg tey boo bëggee nit ki danga koy wax dëgg mhm. na joxe na joxe nopp bu baax bi ñu di ko wax lii lii ne lii yëpp am na loo xam ne nekkul mhm. am na loo xam ne lu bari ñu ngi ñu ngi koy sëlëm di ci kaw nii mhm. xoolu la ci biir nax nañ ko ci li nga ci taw bi ci euh, bi taw bi amee nax nañ ko déedéet bi pont bi bi pont bi amee bi bi pont Padois bi nax dañ ko ndax foofu dañ koo rambale rek bàyyi noonu mu dem yoonam balaa avant moo ñëw ñu defaraat ñu ngi koy nax ñu joxe xool bu baax mi ngi noonu mhm. pour dëggal loolu alaaji mhm. euh, bi lañ gisoon benn télé ba wax la pluie c'est le bon temps mer te dara amu yàlla weer leen ca taw ba ca topp ñu inondé ba seen oto yi ñu koy nax muy RTS ni ko daal bu tawee ba pare Dakar moom c'est le beau temps mhm, fekk amul alaaji loo jàpp ni moo tax président Sall ak njabootam déggaluñ ko wala waa réew mi ak commerçant yi déggaluñ ko. waaw man de li ma yaakaar. Hmm. Euh, dama seetlu ni. Hmm. Euh, wàññi. lu sérieux la. comme yokkit ni mu sérieux hmm. parce que lépp loo ciy def rek euh, muy jëm ci nit ñi. maanaam paramètres yëpp yi nga xamante ne bi mooy tax mu war a mën a ne. doo ci négliger lenn. parce que mbir mi dafa déparé ci kiy indi jox commerçant yi kii grossiste yi jóge ci grossiste yi dem ci ñi nga xam ni ñooy détaillants yi jóge ci détaillants yi moom ñëw ci ñun ñi nga xam ne ñun ñooy dem ci bitig yi di jënd. Mhm. maanaam mu nekk benn procédure boo xamante ni euh, boo koy wàññi mënoo ko wàññee fii bàyyi fii wàññee fii bàyyi fii. Mhm. c'est que il faut que waxtaanam ñu xool lu ca ne. parce que ci biir wàññi bi état dafa am lu mu war nangoo perte. Mhm. ki nga xam ni mooy indi am lu mu nangoo bàyyi grossesse bi am lu mu nangoo bàyyi kii am lu mu nangoo ba mbir mi mën a yemb ci li nga xam ni mooy mbir mi man dama gis ni wàññi yu bari. Mm. dama jàpp ni ñoom liñ ci soxla ci communication. mooy waa turu wàññi naa. Oh. turu wàññi naa nag ak lay am ca terrain ba. day nekk loo xam ni. ba bëccëg la maanaam li ngay dégg tey ñu wax la ko. boo demee doo gis ni loolu mooy am ci boutique bi. Mhm. li nga xamante ni moom lañ leex ci location. Mhm. boo demee doo gis ni loolooy am ca kër ya. Mhm. parce que lépp lu ñu fi teg rek gars yi dinañ ko contourner defee neneen. tey jii mënuma nangu ñu ne ñi ngi wàññi. tey jii détaillant bi ne la man li may jëndee mënu ma koo jaayee man parce que bu ma demee jëndi ñëw mënu maa détaillé ma bàyyi ko. dootuma ko jënd parce ci loi defe naa. Mhm. dañuy tere sax jaay di perte. parce que nit ki warta jaay di perte. comprendre donc parce que tey jii jaay di perte lu tax ñu tere loolu mooy lan xam nga lu tax ñuy tere jaay di perte. Mhm. tey jii jaay di perte boo koy def léegi tey ñu ne la yow mii da ngaa dugg ci ay blanchissement d'argent am na leneen loo dugg looyu xamante ni pour setal mhm. alal ji nga xamante ni bii moom nga yor nga parce que il faut alal ji nga jaarale ko ci yenn circuit yoo xamante ne bi mooy mën a tax alal jooju ko maanaam da ngay mbubboo njaay mi mhm. mais du njaay mi moo la yor am na leneen loo xamante ni bi moom nga ci euh, jublu mhm. donc loolu mooy li nga xamante ni moo tax ñu ne dañuy tere lool léegi nag wàññi yi nga xam ne moom la président def ndax mhm. yooyu yëpp jaar na ci moom lan la bàyyi comme ay taxes bu fekkee daf ne wàññi naa ceeb bi. Hmm. wàññi naa suukar si ndax ba léegi taxes yi daf ko dindi wala ilaa taxes yooyu ba léegi ña nga fa bu fekkee ne moom la doon am. ci hmm. commerçant bi indi batoom hmm. indi ko. la doon am teggilu ko dërëm ba noppi bëgg a. Ah, wàññi mbir mi munul ne. parce que kële bu ñëwee du nangu loolu. tamit kooku tamit bu jaayee grossiste bi loolu mooy nekk ni wax ci daf dañ koy wax rek tey jii mi ngi taxaw di wax ne mer na ci. mais mer day ànd ak jëf. da nga war a teg ay mbir yoo xam ne tamit dafa war a am ay sanction parce que bu ñu ko joxee am na nu ñu ko dénk. Hmm. am na ñu ñu dénkoon mbir mi. waaw ñii ñu dénkoon mbir mi tey ji bu dee président moom mer na te mer googu dëggu ci moom mu nekk loo xam ne lu wér la waru waruñoo yam rek ci mer na mais ay sanction dafa war a am. diw mi ñu joxoon lii doxalu ko parce que bi ñu waxee dañ ne day am comité de suivi. ana ñooñu tey. Hmm. nga xamante ni ñoom ñoo waroon a suivre mbir mi kenn déggu leen ci leen. Hmm. kon donc mer naa rek. taxut nit ñi ne mer nga mhm. parce que ñëw wax fëgg dënn maanaam euh, ñu ne naqari na ko mhm. te gisuñu ci terrain bi luy wane ni yow naqari nga ko wa ilaa ñi nga xam ne ñoom nga faroon ñoom ñëpp ñu ngi toog di yaataa yumbe kon mbir mi naqaru la maanaam dafa mel ni sénégalais yi la ñuy tuur lëndëm mhm. loolu mooy li nga xamante ni moom laa ci gis parce que nag wax dëgg fa yàlla réew mi nit ñi sonn nañ ñi ngi jëm ci weeru koor nit ñaa ngi naan suukar amul tey jii wax nga ma ne ma suukar am na dañ koo denc. dañ koo denc mais lu tax ñu denc ko c'est parce que am na ñoo xam ne jënd nañ ko ba noppi mais buñ ko jaayee dañuy perte. waaw parce que man damaa yëgul benn yoon ne jaay ma suukar duñ la jaay ma ñëw ne jaay ma ñu jaay mhm. xam nga lu tax c'est parce que yow wóolu wuñ ndax mën nga leen a yoole. wa ilaa mun nga donc ñenn ñi bu lu ñuy jaay dañ koy jox koo xam ni wóolu nañ ko. Mhm. jàpp nañ ni kii kat buñ ko jaaree euh, coow di jib. Mhm. ñu moom mu nangoo jëndee na nga xam ne noonu la jaay jaayee. alaaji bi ñu fi wax wàllu ceeb bi fii nii ci benn boutique asan xam na bi may wax bi ñu demee di jënd ceeb. waaw waa ñuy jaay saako bi ca biir kër ga lañ ko génne. waaw hmm? waaw pour dëggal li muy wax mën naa am keneen ñëwoon na ñu ni ko jeexal ne mais ñun bi ñu ñëwee. waa ji pourtant nee na am na waaw ñu ne ko am na waaw saako duggi jógewul ci biir boutique bi ca biir la jóge da koo dencoon waaw ah, da koy denc ca biir la jógee hmm. <laughs> ay ca mi ngi noonu kon daal président Sall bàyyi ci xel jàppal ni daal lépp loo loo wax ni na na wàññi rek wàññiwul ko yokk na oh. non non du wàññiwul sax day yokk après. Mm-hmm. <laughs> waaw day yokk mi ngi noonu jërëjëf ñu dem uh, ci uh, Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp uh, ginnaaw bi agi bu waxee ay wax ñu woo ko di ko laaj gannaaw boobu fekk na Bougane xool bu yàgg 98 milliards ñu ne cel na kenn faalewu ko waaye keroog bi nga xam ni woo nañ agi bu rek Bougane ci boppam démb def na ab conférence de presse ñu dem dellu si waat Sénégal le comptable assignataire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 mais après soo demee gëstu milliard lan la man ñu ni ni détourné lu toll ci 98 da ngay jaaxle léegi li jaaxal ñëpp nag mooy Hadjibou Soumaré dafa posé ay question mooy li man tooñee ma jigéen naan ko ah, da ngay laaj léegi réew mi dafa mel laaj fi wóorutul xam nga gis nañ ku xëy posté la ñu denc la dem nañ ba léegi kon réew mi wóorutul sax ci ay question léegi li jaaxal ñëpp nag mooy kii dafa laaj ñu ne ko kaay bugaan di yuuxu 98 milliards yoo xam ne joxe na numéro compte bu mu ni xaalisu senegal la bu ñu dugal ci compte ci turu Sénégal détourné ko dugal ko fenn tëbale kenn woowu ko lii nag moo jaaxal ñëpp lu xew. moo ma jaaxalaale man ñu sooy lu ñuy xaar pour oo ko. Mm. xam nga réew bi li ma lay wax chaque jour rek la répétition est pédagogique dëkk bi dafa am ku ma am ndey ak ku ma ngi tëj ay comptam yow déggoo di. Mm. koy xeex ay kërëm ñu ngi koy waxtaanal mu ne ma mm. buggaan day liggéeyal Macky Sall Ah, am ku ma wax loolu ma ne ko désolé parce que bu doon liggéey Macky Sall du ko dénoncé waaw te lii Abibou Abibou Soumaré wax Bougane wax na ko keneen ku dul Abibou Soumaré wax na ko te juste une question waaw damay laaj ndax réew bi dañ fi tare laaj sooy bu sama xam bi ñaata la jar dañ koy tere am na noo koy laajee ma yóbbu la ci yoon ah réew mi nag amatul kon nag sama xam bi dafa rafet ñaata lay jar ñu yóbbu la ci yoon am na noo kon nag mooy réew mi nag ku ma am nday la ma nit wax na fi lu ne weng hmm. lu ne weng laa la wax te laaj taw dafa wax affirmer confirmation yu leer te fanaanu fa da wax kañ dañuy naan réew mi opposition bu fi nekk looy wax na nga ko xam looy laaj na nga ko xam mais dama ne la boo nekkee parti au pouvoir waxal li la saf waxal njaay njaay njaay rëkkal junj ya jël wax jala saf jaay ko ma jooju mu foree ko tamaam xale yi baara may ko dara du xew coondu tëgg waal di wéy yàlla yàlla yërëm coon sekk mm. nañu arrêté son yi bu mm. bu ñu naxante dëkk bi li fiy nekk nii du yoon du dëgg du yoon parce que ki ñu jël tey di ko yóbbu foofu di ko def ay garde à pour ñu koy garde à ah dañuy saytu mbiram moom déjà tey rek maa ngi koy ci revue de presse avant may yegsi hmm. lan la wax moom dana damaa laajte waaw dana dana ma ne la son bu dama lay laaj jesner mètre ñaata lay jar hmm. doomu wax mètre douze wala onze mille su ma la waxee jees sa trois quart bi ñaata nga fay amoo droit wax ma yow laa laaj yaa may tontu su kaambaay solu jesner solu abosun so du tontu léegi man su ma la gisoon nga génn bureau saa waaw léegi mu bàyyi ba nga ñibbi ma daal di néew daal di taxaw ca pénc ma fu la ci mbedd daanu ko saa damay laaj ndax bi kii génnee sa bureau da nga koo jox juróomi junni waaw loolu tuuma la wala laaj du tuuma laaj la question la saa njóogu bu ko neex suturaal ma ne joxuma dara bu ko neex ne waa jox naa ndax hmm. réew moomu lañ toll kaay ma wax laa gën a yomb kaay ma dencal la te ñu ci bëri lañ lay wax dara du ci dëgg hmm. sooy bu dama ne juge yeeg magistrat yeeg président laajtee ma la je pèse bien mes fii lu fi waay di def ak loo fi wax di nga laxasoo sa ndeyjoor bi alaa kulli aali yal na yéex nañu rafetal toogaay yi suñu ruq mën a xam ne gis nga àddina bii hmm. day jeex son bu sax poos du fees rek nga yor say milliards di ritambale dugg say ay kilim def say yëf say doom nekk à di jàng xale yi nekk fi di torox daara yaa ngi nii mbënn maa ngi ñëwati koor gaa ngi nii di ñëw nit ñaa ngi jooy di xalaat suba lii xew allahu axlan yàlla moo xam lan lañ war a dundee lan lañ war a terale suñu waajur yi lan lañ war a ñagee suñu bopp parce que fi ne ni nga tëdd rek yeewu yàlla la mais yow yow ñun surtout ñun ñi nekk ci média yi ñëpp da ngay tëdd sax di tiit wala nga def émission tiit wala ngay tiit boo nekkee ci dëgg di wax dëgg jarul tiit jarul rag man day Senghor ragaluma tiituma damay dama ne hmm. président Macky Sall xoolaatal sa njaboot gii hmm. toogal ak ñoom wax leen dëgg li ma la waxoon keroog la répétition et pédagogique yaay père de la nation gis nga réew mi boo bëggee mu am jàmm apaisé ñëpp di doxi seen soxla di ko wax barke alxuraanul karim mun na comme yow lii nga bëgg am njaay indi jóob bi hmm. ah waa neex na neex na neex kay da ngay damay damay confirmer na neex gi ay laaj na neex sàll ngaar lam tool waaw dama dana neex gi dama ne laaj ay question wala da ngay ma ne ndax na neex gi ndax ab laaj la wala da dëggal sa bopp damay dëggal na neex giita ngaas nga ñu woo na neex ah waaw na neex ñu rëkk ñu ko jërëjëf ma jigéen euh, macha allah ab euh, laaj la bu ñu lay jox boo xam ni euh, kii dafa dafa maanaam bul tiit ay wax wax la rek yow jóob nga sant bul tiit waaw ba pare itamit lii may laaj ñi dafa am solo dafay wan suñu yaay ak suñu maam yi ni ndekee réew ma président Sall la yoroon keroog gis naa benn vidéo boo xam ne incha allah altine dinaa ko indi ci télé bi mhm. dafa wër dem Touba dem Ndiassane Niassène fu nekk di wax ni mhm. lii ma bëgg a indi bu ngeen gisee ma indi ko damaa bëgg a delloowaat Sénégal ak xam yi ñu ko xañoon ak démocratie ci réew mi mhm. léegi démocratie googu nag lañ commencé ñàkk ba nit bu posé question léegi mën nañ ko téye ab garde à vue comme niñ téye ki nga xam ne moom Hadjibou Soumaré bàyyi il faut pas me distraire. incha allah d' accord d' accord allez-y mhm. bul ma wax ndax damay laaj ou pas. mais damay laaj. parce que man mais concevoir. <laughs> ñoom tey bu ñu leen bu ñu leen laajee lan moo tax ngeen arrêté kii parce que lan ab opposant la bu toog fee. Mhm. Euh, euh, arrêté nañ ko ndax dafa taxaw bind lettre di demander ay questions yoo xamante ne nii mooy euh, mooy suñu président de la république. loolu la wax ni moom lañ ko jàppee. te dégg naa sax Sadio Gueye suba mi ngi koy wax solo son avocat ba léegi nii xamuñu. lan lañ ko téewee ñoom ñoom avocat yi sagam ñoom avocat yi ñoom ñoo dem ba xamuñu lan lañ jàppee nit te euh, Bougane yaa ngi koy wax ay révélation la def mhm. jël euh, voilà voilà def bu mu defee ay révélation joxoñ Mansour fay ki ay question la laaj révélation ak ay question c'est pas pareil xam nga duñu benn. Mhm. peut-être ñoom mënoon nañu woo Bougane. Mhm. mais man damaa ne euh, may laaj encore. Mhm. yow waa may laaj. soit Bougane li mu wax peut-être nekk na dëgg. te ñoom nanguwuñu ci sori. parce que dëgg la <laughs> damay laaj vraiment damay laaj beneen bi mooy peut-être aji bu sumaaree si suba maa ngi la koy wax à rajo ma ne la kel lenn moo mën a am mhm. soit dafa nekk dëgg mhm. ñu bëgg ko woo bëgg ko noppiloo mhm. wala soit li mu wax li Bougane wax moom moo dul dëgg kee man daal comprendre ma mais daal Sonhibou affaire bi doy na waax te c'est louche bu ñu toogee nag ay Ousmane Sonko di wax ay quatre-vingt-quatorze milliards ay Bougane Gueye Dany jóge fële wax non seulement avant quatre-vingt-dix-huit milliards yi waxoon nañ ci problème euh, euh, le Dantec ba ñu mujj annulé jaay ba jaay ba bu ngeen fàttalikoo. c'est vrai loolu amoon na fi. Mhm. tey kii ñëw laaj poser ay question ci koo xamante ne nii dafa jógee bitim réew te Sénégal son bu bokk na ci pays yi nga xamante ne nii ñoo fi ëppi bor. Mhm. yow yaa ngi am ay bor yu milliards. Mhm. keneen jógee fële ña lay jox ak ñii ñëw di di tibb si suñu xaalis di jël suñu pétrole di jë suñu gaz di jël suñu lépp di ko yóbbu ci seen dëkk. yow nga yëkkati 7 milliards di leen ko jox moom mu taxaw di poser question nga woo ko tëj ko. ah ci kilifa boo xamante ne nii peut-être même bu dul dara sax. amoon am na lu mu fi jot def ci réew mi nekkoon na fi premier ministre nga woo ko tëj ko ndax lan parce que daf laa poser ay question li nga wax rek mooy dëgg dool ah. nii comme que dafa nekk di lii ah. na neex na neex ah. yaa ne na neex na neex ah baax na mhm. baax na na neex kay mi ngi noonu suka euh, da ngay laaj Boubacar Samba ngi lay seetaan da ngay laaj mhm. voilà ngi noonu kon ci ajumay tey jii hmm? ma lay laaj waaw laaj ma moo laaj li buggaan wax. Hmm. noo ko gisee ak li agi bi wax ñu téye ko te loolu buggaan wax kenn téyewu. buggaan est-ce que bëggul ko ko tëj. buggaan waaw kuy bëgg ku la tëj suka ah, ah buggaan rek. bëgg ku la tëj buggaan fu ne lay dugg buggaan ne lay wax buggaan ne lay lijjanti te kenn laalu ko ba tey. waaw moom kenn du ko woo. moom kenn du ko woo mais bu xëyee suba daal di. wax de te lu lay wax te bu waxee kenn ko faale. te day indi preuve li lii ak lii mais kenn du ko hmm. euh, moom day wax rek day wax rek day wax rek danaan lii ak lii ak lii lii gis naa ko lii ak lii président Macky Sall mais kenn du ko wax dara woo leen ma kenn du ko woo. waaw yéeme na de. gis nga kenn du ko woo dañ koy jël ko ne. non kon nag moog oh, di kan. moog Sonko kenn du leen woo. Euh, Sonko moom dafa nekk ci yoonam nan ko bàyyi rek moom mu def. lu mu bëgg a def kay comme kenn du ko woo. parce que est-ce am na njëriñ président amal na njëriñ président de la république non non non non du tout déedéet par rapport Bougane non bu waaw da ko waaw Bougane ak kii Bougane ak Sonko c'est diamétralement opposé kii dafa am mbooloo dafa am ñu mu àndal mm. kii kan moo ànd moom dafa dafa am loo non damay laaj <laughs> <laughs> moo fi ne damay laaj voilà damay laaj rek ba tey teer leelu kan moo ànd ak moom kii mbooloo la àndal te mbooloo boo xam ne boo buñ ko woowee tey léegi mbooloo mu fëkk ñëw ànd ak moom kenn du ko woo léegi lii ku ma am nday la ku ma amul ku ma amul nday la moom nee na moom day laaj rek hmm. kon dañ koy laaj moom président li ko ajibu laaj wax na la ko leeral rek loolu la question réponse rek ba xam kii Marine Le Pen jox ko cinq milliards jox sept milliards joxuma ko dara kay loolu neex na hmm. waaye nga di ko woo ni ko lii wag lii wag ba jël ko ne te kilifa la hmm. président dañ lay laaj rek tamit lu mu def ba lu mu def ah, loolu ngay laaj lu mu def. waa du ma ko wax na neex nag moom. <laughs> Ah, wax na neex. <laughs> alaaji euh, jàngat boo def ci ñaari mbir yi xewandoo kii 98 milliards la tudd yoo xam ne moom joxe na ay numéro compte kii nag 7 mili 7 milliards la wax yoo xam ne dafay laaj ñu téye kii bàyyi kii muy doxi lu xew. waaw est-ce que kii tëjuñu ko. tëjuñu ko. bugaar est-ce que nekkul ni ci li nekk nii moom prison la. voilà leeralal affaire yi nag. Ah, peut-être boo ko tëjoon mu wàccoog salaire yi dootul fay salaire eh. dootul def dara day wax de kii léegi peut-être boo ko tijjee nii gars yi daan ko ñëwal géew weer wi dee na comptable yeeg yooyu muy lijjanti est-ce du loolu booy kaso bi fi mu toll di ci bugaat. <laughs> parce que pareen saa yi am na ñoo xam ne boo leen tëjee kaso da nga leen tijji maa la doon nettali ne la waa nga xam ni ramas da koo jàpp police bi xool ko ne ko eh, ci ci bi ci acca yow foo fanaan ngay wër <laughs> pareen saa yi nit dina toll foo xam ni dugg ci kaso bi mooy gën ci moom nekk ci biti. waaw mais léegi révélation bi dafa yow yaa ngi ci biti. Ah. révélation bi dafa rëy. waaw mais révélation bi léegi nag bu noo seqaloon c'est pour humour quoi. xam nga c'est pour humour que ni boo pare saa yu mel noonu est-ce que du nekk kii quoi mais nag. li mu wane. lenn la loo xamante ni bi def na ci point de presse. aussi tamit leera wane ni alal la joo xam ni dafa dañ ko leb bitim réew. alal ji waroon a dem Sénégal ñu gis ko ci compte privé mu nekk loo xamante ni bi joxe na ay numéro compte ak yooyu jàpp naa ni li mu def révélation la boo xamante ni bi tey euh, bu doon ci réew mu normal dëggantaan lañ nekk scandale bu mag a mag la mm-hmm. parce que lii doon nañ ko lijjanti ci nu mu gën a gaawee le fait que nag ñu soofantal ko moo lay wan ne la dama naan bon ñi nga xam ne ñoo yore jibay réew mi ak réew mi ni muy doxee est-ce que réew mi kon yitteel na leen mm-hmm. parce que le ñu bañ koo xoromal parce que loolu lu ñu war a wax la lu ñu war a lijjanti la comme ni ñu fexe woon quatre-vingt-quatorze milliards yi ñu waroon lijjanti ak xaalisu Covid bi nga xam ne dañ ko war a mhm. lijjanti te lijjanti wuñ ko problème yu bari Sénégal yoo xamante ne dañ ko war a wuñ ko loolu leer na la kan hmm? moo koy ah, ñi nga président moom la ñu fal ah, mais alaaji yow amul woon sept milliards yu Taïwan yi yu Idrissa Seck ji ñëw président mais dama ne xam nga loolu moom loolu mën nañu wax ne ana yooyee ba léegi xam nga loolu mën nañu wax ne yoolu loolu ci jamonoy Ablaye Wade ah, waa mais ba léegi ci boobu Sénégal la tege de Ablaye ñëw na weddi na moom nee na musta maye alal waaw yaa ngi dégg donc loolu lu ñu war a di lijjanti mais en tout cas daal problème boobu nekk na loo xamante ni kii léegi nag Hadjibou Soumaré mi laaj ñu woo ko denc ko hmm. waaw xam nga par exemple nga posé question boo xamante ni bii mën nañ laa téye en attendant balaa ngay génn leneen di wut réponse peut-être dafa amut tontu laaj yee amut tontu. Hmm. saf gi laaj yi saf peut-être moo tax ñu ne ko kaay yow léegi nag euh, man li ci doy waar mooy Abdou mbay mi ma dégg mu ne Hadjibou Soumaré mhm. euh, ni mu waxee xaw ma mi ngi mel ni kuy jubbanti Hadjibou naan na jégguloo na def léegi na def laa mhm. yooyu nga xamante ni moo wax Abdou mbay moom lu mu xam ci mbir mi ba naan jéggul bay expliquer ah, comprendre am na loo xamante ni dafa tooñ président bi waaw yi mu wax noonu waaw parce que yow bu fekkente ni nit ki dafa poser ay questions mhm. parce que man jàpp naa ni Euh, ajibu def na ko ci façon bi mu gën a responsable maanaam peut-être mën na am mu yëg dara mhm. li mu yëg bugg koo wax directement léegi ginnaaw bugg koo wax directement accuser président mhm. mu def ko si form laaj si mhm. forme question la ko def léegi nag jàpp naa ne bu fekkente bi ay tontu yu leer a ngi fi soxlawut ñu koy téye dañ koy tontu rek mu daal dee jeex mais la fait que tontu wuñu ko ba noppi daal di koy woo teeku garab yi aji bu nag kilifa la. d'accord parce que tamit bon pareen saay àddina bul di toroxal ay kilifa. te aji bu kilifa la. sunu borom def na ko ko. que mm. ni nit ki mu neex ko ak mu naqari ko. sunu borom jiite na fi jëwriñ yi pendant des années. Mm-hmm. donc loolu nag du lu ndaw. comprendre nga kilifa la donc kilifa yi sunuy kilifa yi il faut que ñu di leen sagal. parce que sagal googu dafa am solo. Mhm. parce que bu ñu demee ba fu fuyee yenn yi. Mhm. Euh, mbir la yoo xamante ni bi mbir yi doy waar lay nañuy sagal kilifa yi daal. jaajëf jërëjëf Alaaji Sanjogu Mbeng kon ñu mujjee ko rek ak euh, daf mel des na nga ma wax de ah. voilà kon ñu mujjee ko ak point bi nga xam ni Papa Ndiaye nekk euh, fii ci kër gi ñu koy ñaanal mu delluwaat ci njaboot ak jàmm incha allah léegi dañ koy lëkkale nag ak loo xam ni keroog bi ngay jël point yi bi ñu koy bind nee naa ki ma doon waxal bëgguma sax tudd baatu baat bi ñu koy wooyee fii ci Sénégal parce que Sénégal foo toog di wax ci tele rek ka ngay waxal amaana doomam jarbaatam mbokkam mën naa nekk sa soppi di la seetaan moo tax ma ñu utiliser ci baatul rek ñàkk sago gi nga xam ne wax nañu dañoo ji dafa jël lu koy tàqaleeg sagoom journal yi ñoo ko bind gannaaw bu ñu def na ko ñaari yoon bàyyi nañ ko nag mu ñibbi donte ni nee nañ def na ay catastrophe maanaam am na ñu mu mbëkk moom Papis Diaw léegi am ñu lëkkale ko ak jàpp Pam Ndiaye ñu ne dafa am lu mu wax ñu teg ci ndoddam six points yoo xam nee nañu da koo wax te du dëgg ñu téye ko loolu donte ni moom dem nañ ba ci biir ñun itam bu demee ba nga xam ne peut-être ay source am euh, moo ko nax mën na génn jéggalu euh, mu féete boor nan nga gisee loolu ak permis à point yi nga xam ne état bu Sénégal dañu woon da koy indi ci wàllu permis tey nit mën a def jéyee deux fois mënoon na rey ay nit mm-hmm. tey jii ñu bàyyi ko mu dem permis à point sooy bañ ko fii doo ko wax laa ne lii du dem intoxication la rek du lu ñuy valider Mm. parce que bu ñu ko validé dafa def link moo yàq réew mi sony bu link link mooy balaa droit tey sony bu temps yee passé amul benn ministre benn avocat bu jaar ci euh, war a respecté feu rouge respecté wul feu bi mu burne dem jaar sens interdit mm-hmm. et pourtant bi ñu ko arrêté lan la wax magistrat la man la diw dañ ko bàyyi mu dem non mm-hmm. xale yi taxaw bi policier bi di wax ak waa ñoo ko filmé mu ngi ci réseaux sociaux mujjul fenn yow mi boo ko defoon tey jii amaana mm. doo yegg dinañ la bindal la dangay dem fay douze mil wala nga fay six mille wala du genre ñu koy loolu wax la wala nga samp pour mën a dem dañu mm-hmm. waxante dëgg dëkk bi du mus baax mm-hmm. parce que link ak lobby moo fi nekk moo koy doxal mm-hmm. tànk ki fi nekk wàccu loolu jeex maa ko wax link ak lobby sooy bu da ngay tooñ yow da ngay tooñ dem ka nga tooñ war laa yóbbu ci yoon yow nga dem yow man ma des fa man te man maa la tooñ looloo fi nekk da ngay tooñ wax li la saf nga génn dem añ ba suuf reer ba suuf dem mbeeraay def de la saf ki deful dara waxul dara ñu ne ko kaay xanaa kooku amul ndey wala amul baay wala amul ay mbokk on est dans quel mhm. man réew mi man bi ñu nekk ni actuellement dama xam ban Sénégal lañ nekk mhm. man est-ce que nekkuma Guinée je ne pas xaw ma fa laa nekk mhm. damay toog ba yàgg ma yéemu ci àddina li ñu def da dëgg du yoon te pourtant kooku ñu wax ne dafa dafa mandi lañ wax mm-hmm. pour mu clair pour ñi seetaan xam mm-hmm. dañ ne defa mandi TFM mm-hmm. la nekk def nañ ko ci journal yi kanamam teg nañ ko nëbbuñ ko bu doon lu ñu suturaal nit la mënoon nañoo nëbb kanamam no mais ñoom ñoo ko exposé kenn nëbbu ko ba pare wax ko te ne bi mooy deuxième fois mu di ko def ba mu mandee dafa mbëkk benn oto bu gaaree taxaw ci parking circulation Kër ma saar mu ne ko raji dugg te dara fekk ko ci léegi pour lan loolu moom moom mooy kan moom fu mu toj moom nu mu sant moom mooy kan Pape Ndiaye jàpp ko dem suñu 8 mars baa nga ni sax xam nga ne neexul sabaru musique bu ngir dund kooku mu métti nit ñi nañu arrêté son yi bu léegi moom moo gën Pam Ndiaye Pam Ndiaye Pam Ndiaye li mu wax mm. moom tamit li Abibou Soumaré wax la wax rek question bi daf ne am na yenn magistrat yi nga xam ne li ñu attee euh, Ousmane Sonko fay ñu ko yóbbu mm-hmm. am na ñu ci d'accord mm-hmm. mais mën na nekk police yi am na ñu nekk Macky Sall am na ñu nekk Sonko am na ñu nekk Malick Gakou am na ñu nekk xalifa am na ñu nekk keneen. ñëpp libre ngeen ngi nekk lan moo tax vote militaire di nekk privé. ñoom bu ñuy voté ñun bu ñuy voté duñ ko xam duñ ko yëg. parce que ñu yor seen tenue ñun ñu nekk ay citoyen ñun sénégalais ñooy génn voté nga jaay ñàkk kersa pour bëgg ñaari junne ñu la jox devant la porte wala junne nga dem jël yeneen. këyiti jàmbur def ko ci sa biir wala sa jiin génn dem ut bëgg lu neex leader bi ne ko voté lu ma diw mbalit yaa ngi nii nañu arrêté civilisation amul ci réew mi yar amul ci réew mi parce que ñàkk kersa gi moo fi nekk ku ñàkk éducation de base nag da ngay perte sa lépp dañu defaraat toogaay te yemale doomu aadama yi nga xam ne yàlla yemale na ñëpp ñoom tam nañ jéem a yemale réew mi merci beaucoup Bambi euh, ma jigéen deux fois deux mesures def mel la ñu gis kon ci réew mi bu ñu seetloo donte ne papis la mu def wuute naa kii lu tax loolu di am bi mooy deuxième fois ñu bàyyi ko mu dem te suba mën na laa rombaat ak otoom nii def deuxième bu saf sàpp Pam Ndiaye yàlla na ko yàlla génne ci xat-xat yi moom tamit nee nañu diffamation la def ba tax na téye nañu. waaw deux poids de mesures son yi wax dëgg yàlla de man de bu ma xoolee mbir mi. Hmm. boo dee seet li waajee def sax moo gën a garaaw téeméeri junni yoon. parce hmm. que même même même occidentaux yi sax parfois da ngay gis ñoom ñu pointé si tali bi guddi gi. Hmm. bu ñu gisee kuy dawal màndi. dañ lay arrêté parce ji ju nekk mën na mën mën na ko nekk tey jii nii ñu ngi wax ne oto boobu noonu moom mbëkk mënoon na nekk nit xam nga su nekkoon nit su ko su fekkoon dee na maara day taal yi dañ koy tëj ci kaso bi donc da ngay jël loolu nga jël place oto bi rek nga teg fa nit njaay kon nga xam ni kooku def na erreur mm-hmm. nañu bàyyi bu nit defee dara rek nga ne nit kii kat peut am na nu mu mel ñoom ñaan ñoo yem parce que ñoom ñaan ñëpp ay journaliste lañ certes mm-hmm. Pam Ndiaye ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm gaaw génn ak jàmm ak salaam ay ay kii la lu yu mu teg rek même ñu ko woowoon sax buñ ko dégloo waroon nañ koo mën a bàyyi mu delluwaat këram kee li mu def moo gën a garaaw téeméeri junni yoon parce que bakkanu doomu aadama rek mënoon na cee loolu mm-hmm. di dawal di di di di di di fekk yaa ngi màndi mm-hmm. loolu code de la route baaxul parce que lu nekk mën na mën na si am. son Assane Mesere nee na. Mm. loolu bu amee. maanaam lii yoon dañ laa war a jël wéer la fenn ba nga dellu si waat <laughs> ba nga xibiliku ñu joxaat la sa permis nga dem. en tout cas euh, tubaab yi noonu ñoom moom noonu la ñuy def bu ñu la gisee màndi nga dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay kii léegi léegi léegi. mais vidéo buy circulé ci YouTube bi. waaw malien benn paa malien moo màndi ci yoon bi. policiers yi arrêté ko xam ne mi ngi xeeñ sàngara booy dañ ko téye yar làppali ko sotti ko ndox nangu permis bi téye oto ba bët set ñu doon ko vidéo yi dañ ko waroon sanctionné même su fekkee ne dañ koy bàyyi mu ñibbi sax am yenn yoo xamante ne ni jaaduwul parce que niñ ko bàyyee ni mu ñibbi parce que ku xas ba màndi yow nekk àndatoo ak sa sago bu ëllëgee mën na koo defaat te bu boobaa bu ci reyee nit ñaanuñu ko yàlla bu boobaa lan la ñuy wax temps jàppoon nañ ko fi dañ koo bàyyi woon mu ñibbi si këram te tey def na jéyee ji nii am na yoo xamante ne mieux vaut prévenir que macha allah kon daal sukkaa kon maanaam wóoratul léegi ci réew mi kon ndeke nit mën laa romb ni xuy di dawal xuyu waaw maanaam kon ku la romb rek maanaam léegi daal bu ñaawal jot ku la romb ci tali bi Mhm. moytul xam ne mën na ni xuy di dawal euh, bu ñu sukkandikoo ci ne ndax de xuy ah, la nag moom ah boo se mais crime la ah, boo seetaanee boo seetaanee télé sax boo sa seetaanee télé même ci film yi boo nekkee en temps d'ivresse hmm. dañ lay jàpp dañ lay jàpp c'est diamétralement mais defe naa deux defe naa moom defe naa deux jours Hmm? defe naa moom fanaan na fa deux jours sax. mais Pape Ndiaye kañ la nekkoon ci. waaw euh, bu ko noo koy waxee. kumba am ndey kumba ah, amul ndey. non man aw problème mu bàyyi mais problème joxaat ko permis bi. permis bi parce que est-ce tàmmul di ko def ñu koy bàyyi chaque jour bu ko defee bu. bu ñu ko la rek banaa loola. est loolu tàmmul di ko def par rapport ak Pape Ndiaye. Hmm. Pape Ndiaye li mu wax parce que euh, danoo ciblé fi nga xam ni rek moom moo di Walfadjri. Hmm. day nit koo xam ne mi ngi Walfadjri di am yu muy wax teg ko ci yoon di ci wax parce que xam na ko parce que mi ngi ci li nga xam ne rek moom moo di milieu bi. Mhm. am na loo xam ne nit du def yenn yi. d'accord am na lu bari loo xam ne da koy jomm. Mhm. Euh, son yi bu. nit bu ñu leen boo jàppandoo. kii dañ ko jàppee ci lii kii nu jàppee ko ci lii nga bàyyi ko ci lii jàpp kii am na loo xam ne nag doy na waar. d'accord voilà nit ñi nag gën war a xam xool dañoo war a xool. nii noonu. Mhm. jërëjëf euh, Souka Alaaji noo jàngatee mbiru euh, papis mi euh, ak Pam Ndiaye moom itam yàlla na ko yàlla génne ci xat-xat yi papis i tamit li ñu koy waxal ni yëpp bu dee dëgg laa nattu la rek yàlla ko yàlla génne ci nattu yi noo jàngatee ñaari mbir yi Pam Ndiaye ji nga koy ñaanal fa mu nekk mu jóge fa ci jàmm dellusiwaat ci liggéeyam euh, parce que nit ku ne ci li ngay liggéey li ngay joxe nit ñi ay xibaar loolu boo ca même bu fekkonte ne da nga caa juumit ci sa liggéey nga ne bokkut ak kële nga xam ni ca leneen la ne maanaam kii ci li mu ne même bu fekkante ne bi euh, dañu wax ne mu ñu ne la dangaa juum te jàpp ma ni peut-être que ni juumte am na ci parce que ba léegi bi ngi nit ñaa ngi véhiculer yeneen kii mais waxut loolu nga xam ni moom lañ ko waxloo mm-hmm. que ni il paraît que waxut benn yoon weddiwut ay wax propos am. waaw dëggal na li mu doon wax daal dëggal na li nga xam ni moom la waxoon. kon donc loolu mooy wane ni kon li mu doon wax wér na ko tey fi mu ko jëlee eh, doy na ko du dëgg. donc kooku mënaguñoo mënu maa jàpp ni man fi mu toll nii ba nëga ni ñi am njuumte dafa am ci mbiram. Mm. waaw kon fi mu toll nii nañu xool ndax yëf yi eh, jaay doole rek buñ koy jaay doole wala wala lan mooy li nga xamante ni bi moo ci nekk may daal moom ci liggéeyam la ne. Mm-hmm. fan yi ñu génn nag boo seetee réew mi dafa nekk ci ay coow yoo xam ni ba nga xamante ni bi defe naa ni premier ministre ak ministre transport ñëpp daje nañ wax ci accident yi mm-hmm. mu nekk wax joo xam ni euh, jàpp naa ni wax ju leen yitteel la ginnaaw bi ay nit ñàkkee seen bakkan ba ñu jëloon luy toll ak vingt et un defe naa daal di koy ne bëcc ci taabal ji ci jamono jooju ñu découvrir chauffeur bu màndi boo xam ne jàpp nañ ko mu mbëkk kooku mbir yi warta li seddee nii parce que tey imaginer tey mu nekkoon benn chauffeuru euh, moo xam transport bu ñu ñëwoon dafa màndi mbëkkoon dara ñu jàpp ko est-ce que nii la ñuy traité mbir mi. Ah. foofu ngay yóbbu mbir mi. dégg la tey jii da ngay jël waa ji nga teg ko ci palaasu tey tegoon ko benn sëfoor rek boo xamante ni bi da doon dawal màndi ñu jàpp ko yëg ni dafa màndi. Mhm. te mu nekk loo xam ni ci surtout ci période bii nga xamante ni bii dañoo jëloon fii ay points yoo xam ni tegoon nañ ko. Mhm. wax ni accident yi nii ak naa ñu gis ni moom kuy màndi moom di dawal moom wóor. waaw dëgg mën naa def lu ne. mën ngaa rey sa bopp mën ngaa rey. mën ngaa rey sa bopp mën ngaa rey ay nit. Mhm. lu ne mën nga ko def parce que tàqalikoo nga ak sa sago te oto boroom sagoo ko war a yor. Mhm. ku am sago licite waaye ku licidut warta dawal oto ñaareel bi ñu ne. Mhm. defoon na ko beneen yoon. mu ne lu jiitu lii loolu amoon na. si waaw kooku nag. ay xanaa kañ bu njëkk bi sax bu ñu nee jéggal nañ ko benn yoon parce que peut-être dañ naan mi ngi koy soog a def. Mm-hmm. mais mu tollantiwaat ko. Mm-hmm. mooy wane ni kon kii kat. nga ñam. Mm-hmm. te fi mu toll nii libéré nañ ko bàyyiwaat nañ ko dana dawalaat. waaw te fekk génnut ci mbir yooyu. mën naa defaat lu ni mel. Ah, mën na laa rombaat ak deuxième. waaw bu ëllëgee nag bu ko defaatee keneen. maar de taali yàlla bu mu am waaye leneen am ca. léegi ñan ñoo indi problème bi ñu koy bàyyi est-ce que ñoom ànd nañoo ak seen sago. waaw ah, mais loolu est-ce que bara branlon la war a la war a doon. yi xaw ma branlon la xaw ma lu mu waaye daal dama ne. kuy tàggalikook sagom daal ñu ne ku àndut ak sagom moo ko dugaloon fële def na ko defaat ko ndax ñi koy bàyyi ñoom ñi ngeeg seen sago foo mhm. faut que ñoom it ñu jéem a xalaat ne kii kat même buñ koy bàyyi mu ñibbiwaat këram nañ na ko dootoo dawal. Hmm. nañ téye permis bi. d' accord interdit ko ko. léegi man foofu problème bi mu am mooy. waaw yamba defe naa euh, dañ koy aaye ci réew mi. yamba waaw. yamba day tàqale nit ak sago. yamba nga daan li ma xam. léegi question la foofu damay laaj. comme dañuy laaj dañuy damay laaj. léegi sàngara itam day tàqale nit ak sagoom. waaw léegi sama bi mooy lu tax bii dagan ci réew mi bii xaraam ci réew. non yamba. ñaare ba baax. non non non non non non ki li mu wax mooy. Ah, sàngara dañ ko autorisé. waaw dañoo autorisé bii xam nga sàngara. sàngara sàngara loolu yëpp mbiru tubaab yi la rek gis nga mm. yamba. Mm. moo gën sàngara. lan yamba parce que yamba. li yàmbaa day faj sax am na yu am na muy faj donte nag ëppal lépp loo gis non sooy bu ma wax la leen sooy bu am na ñoo xam ne tey jii tubaab yi tubaab yi da ngay dem docteur bindal la am na dëkk yu ñu ko autorisé yoo xamante ni bi day am pharmacie yu jaay yoo xam da ngay dem jënd c'est parce que da nga ko soxla mm-hmm. ah yaa de dégg ëppal giñ ci ëppal ëppal gi ci ñenn ñi ëppal mooy moom mooy problème mooy ma ni sàngara ak yàmba ñoo bokk lu ñuy def léegi lu tax ñu autorisé bii waaw mais c'est parce que bii xam tey jii loolu pour nga xamoon ko hmm. gis nga tey boo invité woon yenn genre rastamaan yi ñu toog am na rastamaan yoo xamante ne bi yor nañ ci philosophie yu extraordinaire yoo xamante ne bi chaque onze mai boo leen déglu dañ lay expliquer gànjaa gi fi mu jógee et cetera comprendre ak li nga xamante ni bii moom la mën a def ba ci am na ay feebar yoo xamante ni bii. yàmbaa eh, ji da ci da cay baax. Ah, ba ci ay asma am na kii yoo xamante ni bii. Eh, am na nuñ koy kii. maanaam benn zoé wala. comprendre nga non xam nga tey jii yi. boo ci ëppalee mu yóbbu la feneen. mu mu loolu waaye kon léegi lan moo tax ñu aaye ko. ko dégg nga a wax dëkk yoo xam ne aaye woon nañ ko mais léegi autorise ñu koy autorisé. Mm-hmm. ñi nga xamante ni bii da ngeen di wut ay place yoo xam ne bëgguñ tux sa yàmba fa ngay dem tux calmement. am na dëkk boo paree daal dee dem. dañ lay jaay loo xamante ni bii. tux mu yam di nga mën a économiser ki yor sa carte boo ñëwee jënd. Eh, defar say joint nice na ah parce que foo fekk tukkat yamba léegi la plupart du ñu am problème dañuy toog xoolal laxas ko nii orné comprendre nga taal après léppay fine quoi ñoom eh, dañuy eh, xool nii affaire yi xam nga affaire yi nice ba pare mais nag li ci bon mooy. Mm. dañ ci abusé. di ko def ba mujj gi vraiment boo yu bari yi nga gis fii ñu ñu ñu dof fi toof mm. ay yàmbaal ak affaire yooyu quoi. mais sàngara day baaxut. pour nit ñi mais sangara day def loolu sangara da koy def mais bon yàmbaa da ci gën a. sangara gën a yee sooy bu. waaw moo gën a yee sangara moo nekk lu nga xamante ne moom xabaayis kay bu ñu nee bokk sangara gën a yee mooy ndey ñaaw dee fi sangara sangara mooy ndey ñaatee sangara moo nekk li nga xamante ne loo ci def boo xëy bu la waxee yàpp yeneen sangara yoo xam ne bii sangara sangara néew di doole yi dafa gën a tee bon sangara néew di waaw dafa am sangara yoo xam ne ñoo gën a tee garaaw mooy mooy salañ salañ yeeg yooyu mooy sa ay sun ay kii sangara baadool la quoi dafa am yoo xam ne yu am na ci dëkk yoo xam ne sax laj coloñ bi la ñuy naan ah xam nga ne laj koloñ nga jël ko ne xaar nga jël ko sol ki nga jël jël sa ñaari bitéelu laj koloñ ñu ko tuy mm-hmm. xoolee nee naan ba pare lancé waale un appel am na beneen sàngara bu mel ni big bu xew tamit loolu tam war nañ ci wax billaahi war nañ ci wax comme big la mel comme big écriture la mel dinaa la am benn euh, lien bu ma la envoyé loolu dina war a ñëw ci noo ko dundee bi d'accord incha allah jërëjëf su kaa loolu la ñu indi woon 75 449 23 23 ci appel yi nga jot Baye Assane Mesere ci um, WhatsApp bi nga jot ma nga ñëw fii ñu waxtaane lépp loo xam da nga ko dund te jàpp nga ne war nañ ci waxtaane mm-hmm. lépp loo ñu indil nag muy xabaar bu dee yaa koy nettali su dee da ngay nëbb sa baat duñ ko duñ ko teg la mm-hmm. su dee itamit da ngaa bañ ñu wax sa tur duñ ko wax waaye nag bu dee nit ko koo xam ne feebar dafa am feebar ci biiram mhm. par exemple man saa yàlla nattuma feebar boo xam ne bëgg naa ñu dimbali ma waaw mais bëgguma ñu xam ma mën nañu laa fulute changé sa baat mhm. mais bu dee joxee xabaar boo ñëwee duñ nëbb sa baat duñ nëbb sa image sinon ñu bàyyi macha allah mhm. nice na rafetati na lool macha allah son yi bu li nga fi indi am na solo donc ñu dem régi daal di nag ñu ànd ak Mame Bambi Kébé Ndiouga Ali Ndiakhate ak Mbaye ci amati solo mu indi di ko fii ma def la sama noon weddi li ma doon fa ma jóge gas def ci kàmb la ma bàyyi be woon euh, jërëjëf Modou Diouf euh, jërëjëf euh, <laughs> lii kenn mënu ko wax saa njóogu bàyyi ngeen la li ngeen di def kele ba tele ngeen waay donc madame madame Kébé Ndiouga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 si ñaar bu demee dem aussi ba jeexal ko dañoo war a xam ne suñu boroom moo ko jeexal rek mu yem fa quoi mais kanta ngay ku góor ngay jigéen dem ba suñu borom dogal tàggoo seen diggante yow ngay fexe di def tout ba dootul amaat jëkkër man loolu rafetlu wu ko quoi loolu loolu lu ñaaw la ñu bañ a di defante yenn yi waaw léegi jigéen ñi tamit aussi ñu bañ a mu bañ ko topp ci affaire alal.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 yëngu na fan lañ jëm mage on est dans quel pays tiit naa waaw waajur boo jëm a takkalee ak doom parce que doom moom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 suñu secret mm. mais xam nga ne waxoo ko ne ko may ma temps wala boo mayu nangam du la sëy dañ waxante dëgg on se connaît ñun neen lay wax na ko xaaral ma yeggee la maa jigéen man mi bi may takk waxuma bënoon na ko soo ma joxul nangam yàlla dañ waxante ko gis nga sëy ñett yi ci sëy du contrat mm-hmm. doom yàlla bind ko ci sëy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 bambi mhm. certes ma man mën naa li ngeen di wax ba ñu ma ko de mais aussi tamit le gars kooku tamit il est waa parce que yow faux moo tax nga dem leb onze millions ak loué neexee parce jigéen ñi loolu gëm d'accord am na xale yoo xamante jaay taar yi la wër xale bu am biceps xale boo xamante yoroo benn dërëm say nelaw doyul seen kër bu ñu añee benn ustaas wala sooy bu ñëw wala benn ndongo daara sooy nga xeeb ko nga ne sama ngaaka bi sama daf fekk wala gën a mën a àbb ko àbb benn range àbb nangam te dara dara moomu ko ci mais yow yaa ngi tiitaroo di sagoo sama oto waaji rek simisi waaji nangam te yow xooloo jikko da ko xool ci ñun jigéen taamu sëy jikko man mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. na erreur mais bu rëy gaa aussi da ngeen war a wax euh, nañ ko yëg est ce noonu benn xale bu jigéen dootu dina dina ko moo xam man ko ba tey bu ko ko daal bu demee ko takk du nekk lébu xaalis li nga kaa boobu ah, yaa ngi koy cumulé ak suñu kaa ba tey mi ngi mel ni jigéen ji tas ak nitam mhm. mu xam ne man kii ma tàggool minti milliardaire la dafa yoon yow tàggoo nga mais sa xel maa ngi ca alal ja parce que nobatoo ko de mais sa xel bi yaa ngi ko teg ay si alal ji mm-hmm. alal jee tax lekkoo naanoo loo am sër boo am dem yóbbu ko ci sër yi fu waa ji jaar du fa jar jabaram damuy sëyal sa fu jaar du fa jar yaa ngi xool leen yàq loolu soxor la wala lan la mais loolu nag mooy sujet bi moom waa ji ba tey mu jaar ba mu jaar bu leen comparé ñaari tali ñaari sujet parce que jaay taar la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 xaaral xaaral am na yaay yu ma leer ba leer mooy xamul woon ni am na yaay yu am na yaay yoo xamante ne may ma du ko mm. sëyal may ma maa mais dama ne am na yaay yoo xam ne xale bi day bëgg a sëy ak waa ji son yu bu réer benn dërëm jaay kotu naanaa la mu nag ko bay bëgg a dee sa yaay taxaw ne la doo sëy ak son yu bu ndax yoru mm-hmm. am na yaay yu matérialiste yu raw ndaw si li mu nangu loolu nangu naa ko bam bi mais aussi le gars yi xam nga fu mu toll nii yéen a ngi ci benn impasse boo xam ni euh, bu ngeen deful ndànk dañuy réer du ngeen kii dem ci suñu bi day jeex xam nga mm-hmm. tey mm. mbir mi nga xamante ni mooy mbiru kii man jàpp naa ni mm-hmm. seen histoire boobu ngeen di nettali bi ngeen xuus noonu mm-hmm. eh, banque moom boo koy leb onze millions banque di la lebal am na loo ko wan ba tax mu war lebal am na garantie banque moom du tëb tëb rek lebal la ay onze millions ci Mali foro ah. banque moom neexu ko information la ñu waaw mais waa xam nga moo tax ma ne la seen xibaar boobu euh, faw ngeen xoolaat ko mm. ci yan critère lañ lebalee waa ji mm. parce que onze millions doo ko génne ci banque te banque bi moom amul ay garantie que ni mm-hmm. yow mii mën nga koo delloowaat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 ah jigéen bu doxalee nii doxalee nii def na njuumte bu ko defee jigéen jooju mën cee jël mm, daal di jàng ci loolu ba bu ëllëgee mm-hmm. mu moytu parce que mm-hmm. tey jii yaa ngi def émission mm-hmm. jëkkër ak jabar ak ngi toog di la seetaan ci moment bi am na loo xam ne jëkkër jaa ngi koy def muy ay njuumte dañ koo war a wax ne ko yaa ngi ciy njuumte góor ku jigéen kaa ngi koy def mu nekk ay njuumte dafa war a kii ñoo ci njuumte bu ko defee ku ca nekk registre bu yegsee nga ne ko ah, ki lii de yaa ko moom kayit bu kii mën a la jawit bii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 Mm-hmm. jiital diine. jëri mm-hmm. yàlla itamit def ko mu nekk suñu goro. dëgg la voilà. nañu sëy jiital diine masala da kii masa dugal ci masala. masala nee na taabi ja mu ne taabi jeex. a tiré mais euh, nañu sëy dugal diine maasa ko xulu. nañu sëy dugal diine loolu mooy dëgg tubaarkàlla macha allah ndax sama maam Touré Mandi Mori yàlla xippee àjjana mhm. sa roxule bu rafet kaar boobu nga xam ne moo jur sama waajur bu jigéen musul fay musul tas musul ñaan baat moo ñu yar Touré Mandi Mori ñaari xarit jëkkëram la woon daal na wax nee na jigéen bu nekk buñ la xamee ci ngoro euh, li nga bëgg bu dee chandise nga bëgg waa ji ñëw indi la chandise buñ la xamee ci dibi buñ ñëw laxas dibi buñ la xamee ci ne dew da ngaa bëgg kilot bu gàtt wala budi bu gàtt loolu yëpp mu ngi doon ñaax pour ñu xam àddina mun a defar suñu toogaay tey mun a yar suñu njaboot ci lii ñëw tey alhamdulilah ak suñu nijaay yëpp ba jaan saakure euh, yi merewuñ leen gërëm nañ ci ni ngeen ñu yaree ak ni ngeen ñu tàggatee ci diine ak lislaam ba ñu mën a tey di jéem di wax naam matuñu lu fi jub rek borom subhanahu wa lu fi dëng rek ci suñu dëngate la tubaarkàlla ndax tuuti nañ pour yedd kenn ku ci nekk waaye tamit fier nañ suñu bopp ak suñu waajur ak fi yàlla indi macha allah taala donc mbaay sañu maa tëj te duma gërëm docteur euh, wàddi li macha allah la mu def ci sama dëkk maam jee ci mbirum poste de santé ba tubaarkat Rose Wàddilin baaxkat bi sama tata d'amour boobu maa ngi koy nuyu au passage di nuyu sëñ Moustapha Cissé ak Diagne la ñu def jaamal ci sama dëkk maam muy suñu fierté te ci télé bi lañ ko gis rek ndeysaan euh, macha allah ñi leen di nuyu donc ñu ngi kontaan loolu di nuyu suñu mbokk yépp néegu nday néegu bàyyi bu leen ma mere ndax dañ may xas chaque jour ak képp ki nga xam ne rek woote nga ci jommet bi ba ma dooree ba tey lii ma sol benn responsable président Ousmane Sonko bu sell moom ko mais bëggul ko tudd turam kon yow xam nga man xam naa kontaan naa yàlla yàlla defal jàmm defal ñu ko ndax li duuf ci nag bi mbaay xaju cin bi waaye sañ nañ xool li ci neex ak li ñu saf daal di koy rëtëm ba def ko ci cin bi suukar bu la tàggoo ne maa ngi sangu dem ñëwaat xamal la eh yeggul ci douche bi <laughs> euh, kan moo jaar ci li nga sol macha allah ma koy gërëm bu baax a baax euh, keroog la ma woo ne ma vraiment maa ngi seetaan seen émission jomet euh, bi tey nag moom maa lay ñëwal spécialement jox la ko nga sañ sañse si muy Nabi Store nekk fële ci yi benn dëkk ñaari gaar en face stade Lat Dior euh, numéro am nag di 77 361 71 48 wala nga euh, composé rek ci 77 642 70 97 ma koy gërëm bu baax a baax ci sañse yi rafet yi parfois xam rek il faut ñuy jàpp ci sañse yi sinon rek dara du ci baax ma gërëm ko bu baax a baax moom Seynabou Ndong borom Nabi Store nga nuyu waale Serigne Moustapha Sarr euh, Serigne Moustapha Sarr soppe la doomu Serigne Moustapha Sarr jàmm Serigne Touba masala bi mhm. pour téléspectateurs yi

bari lépp nga jël lépp bu yàggee ñu wax ak yow donc naan di sargal ñi nga ki xam ne rek saa su ne moo fiy jaar man damay wax ni kenn la te ñëpp xam nañ naa moom muy Adja Galeri nekk fa nga xam ne rek moo di sa rue de Conk bu tonton Bas xam ne moom moo di Ousmane Sonko sëñ Moustapha Sarr tamit ñu ngi koy nuyu nee na soppee jomet la chaque jour dañuy bàyyi xel day bàyyi xel maa jigéen day bàyyi xel li ñun ñëpp dañuy bàyyi xel donc dañ koy ñaanal Sarr yàlla na yen bi oyof loolu sa kaw ci barke sëñ Bassirou Sarr jaam sëñ Touba donc ñu àndoon nag li nga xam fi nga xam ne moo di son yi bu rek ci masala ci li nga xam moo di fait divers ak noo ko dundee ñu jóge fa daal di ànd ak ki nga xam ne moom moo di sama xarit bi mu di Bambi Senghor Senghor Senghor saak noo koy waxee sukkandee la maa ngi ni sëtu buur bi sama maam ko nekk président de la République ustaas dañ ko donc dinañ jox ba vendredi prochain El Hadj Modou Diouf ñu ngi lay nuyu lu bëree bëri topp fàttewun la ak ki nga xam ne rek moom moo di euh, lay jàllo donc ba vendredi prochain incha allahu rabi et gros bisous te ki ma lay wax juróom ñaari mbaam sëf la ren di ndax lan alali àdduna dëgg la groupe la woon da doon agressé di sàcc di fàqat di def lu nekk di fóonante rek la yam amul leneen mais fóonante dafa garaaw bu garaawee nag ngém ñi miñ dong la bëgg siiw du dem bàmmeel ku may digal lu baax ma def la sama noon weddi li ma doon fa ma jóge woon gas def ci kàmb la ma bàyyi be woon léegi maa ngi nii ma fu ma nekk nii dafa mel ni dama reer xaw ma lii nii